gi mu doon pataas gu tàng jër ci loxoy euh, nguurug Sénégal euh, professeur euh, Ndiak fal mu ngi ñuy dégtal dogal ga nga xamante ne moom la yoon jël tënku ko ci Juan Branco mu ngi ci Walf Quotidien yéen a di critique ne mangog mujjee nañ ko jëlee ci Ndakaaru génne ko réewum Sénégal ñibbiwaat na dëkkam moom Juan Branco di avocat Ousmane Sonko yéen a bi moo ci xëtam bu njëkk bokk na ci tamit leneen dénk wàllu euh, yoon jot na cee janoog taskatu xibaar yi moom Ismaïla Madior fal jàpp ne ba léegi wàllu contumace ga ñu teg ci euh, ndoddu Ousmane Sonko amul lenn lu ca jot a wàññeeku yéen kabidi yor yor gi xëy duñu ko dégtal euh, bokk na ci Juan nañ ko génne ci Sénégal lu retandu la lu doy la bokk na ci tamit lañ ci doon séntu yëpp ak Sénégal fam ca mujj yéen kabidi yor yor gi xëy duñu ko dégtal yéen kabidi le peuple quotidien Ismaïla Madior Fall joon gi ñu dénk wàllub euh, yoon euh, ci mim réew jot naa dikkat euh, ci janoom ak taskatu xibaar yi xam le ne Juan Branco jëlee nañ ko ci réew mi yóbbuwaat ko ca bitim réew waaye nag terewul yoon daan na ko mu ngi sous contrôle judiciaire mu ngi ñuy dégtal maire bu Ziguinchor mi ñu ne jot naa ndekki samedi gi ñu weesu naan na kafeem moom jëwriñ gi ñu dénk wàllub yoon moo ñu koy dégtal mu ngi ñuy dégtal yi tamit li nga xamante ne lu mun a dab maire bu Ziguinchor bu fekkee ne ay daan teguwaat na ci ndoddam Euh, ndax du mun a ñàkk euh, mairie bu Ziguinchor am déet moom Ousmane euh, Sonko yéen a kii du Sud Quotidien ne mbirum Juan Branco démission Ousmane démission parti maanaam démission Ousmane Sonko wala boog li nga xamante ne mooy tëjum kaso Ousmane Sonko ak nañu tase partem lalu hôpital Gamoune moom jiital Pastef enquête gañu amal jëmale ko ci boto bisu tata googe ñu jotoona sànni ab cocktail molotov jëwriñ gi ñu dénk wàllub yoon àdduna ci Ismaïla Madior Fall ne mbirum avocat franco espagnol bi di euh, Juan Branco ma nga contrôle ma nga sous contrôle judiciaire yemuñ ca génne nañ ko ci lu gaaw euh, Sénégal mbirum Ousmane Sonko mi ñu ne ba léegi ci ndoddam contumace euh, ma nga ca ndoddam amul lenn luñ ca teggi yéen kaabi di sursa xëy di ñu dégtal enquête gañuy amal jëmale ko ci woto bisu tata googe nga xamante ne joroon nañ ko ab cocktail molotov be lu toll ci ñaari doomi aadama ñàkk ca seen bakkan enquête gañ cay amal Sénégal ak ñañ ca jot a jàppagum njort ne seen loxo laale na ca yéen kaay bi di Walf Quotidien xeetu ñu dégtal wàllub candidature coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kaay ne ci jamono ji mouvance présidentielle bi tànnaguñu Walf Quotidien gis ne eh, parti bi di APR la ñu bëgg a jox cër ba noppi laata ñuy sor eh, coalition bi loole nag doon na lu metti lool ay alliés yoo xamante ne ay yóbbaale ma rek la ñu eh, ci bile coalition bu Benno Bokk Yaakaar kenn ci yooyu de alliés sax di parti socialiste Mamadou Mbodj Diouf wax na ca ne profil bi gën maanaam candidat bi gën ci coalition Benno Bokk Yaakaar war na mun a jóge ci euh, parti euh, socialiste yéen kabidi euh, turbine xëy nag wutali marché ba ndugu ji ngir mun fa am soble soble bi jafe na lool waaye njëg ma yokku na bu ñu sukkandikoo ci turbine jàpp ne ndax bu ñu demee ba kilo soble bi di jar 1000 francs maanaam ñaari téeméeri dërëm fii la bët yem nee na yéen a yàqoo yéen a kabi xam de 24 heures mu ngi ñuy xam rek la xew ca Niger ba tey euh, CEDEAO pexe yamuy lal ngir fexe ba jëlee réew ma ci euh, takk der ya yilif réewum Niger ci jamono ji gannaaw coup d'état euh, foqar ci nguur gafa am mu ngi ci yéene kabidi 24 heures la am ca Dakhla foofe ca Maroc le quotidien te ji doon na armel yoo xamante ne lim bu takku ci ay migrants ñay jël gaalu looco bi di bari di bawoo Sénégal ñu bari ci ñoom ca Dakhla la ñuy tàggatembe mujjee sax wëlbatiku doon ay néew ñu denc leen foofe ca armel yu Dakhla voilà mu ngi ci yéen kabi di euh, le euh, quotidien yéen kabi di antenne quotidien xëy wutali euh, Touba mbake jëm ci màggalu Cheikh Bamba Mbacké lu jëm ci wàccaay gi kii di Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké mi yor kaddu xalif bi xam de ne matuwaay yi nguur gi war a jël war nañ ko jëmale ci wàllu mbënd mi ba ca des mooy fexe ba ndox ga ñuy naan ca Touba mun a jàppandi xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ne bu weesoo université ga ca Touba bëgg naa def jéego ngir euh, ndox mi mun a jàppandi euh, foofee ca Touba euh, nag lii di mouridisme du ab parti politique du du mouvement du association kii di Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké mooy ki ko xamle démb yéen kaabi di stade mu ngi ñuy dektal prime league ak juróomi gaynde yi nga xamante ne bëgg nañ ca fës ràññeeku lool ci yooyu le jongante yéen kaabi di suñu lamb mu ngi ñuy dektal li nga xamante ne alxamis gu nar a tàng jër garga 2 ambulance Modja ak. Eh, Dame Sène eh, Liss Ndiago ak eh, Naaru Sogas ku yabo sentu ay combat yu nar neex tàng jër bëre mun na caa feeñ yem ak fi ñuy jeexalee tënk xibaar yi dañ ci dikkaat na mu gën a ci yéenekaay yi ci noonee. abonné ci suñu YouTube ngir jot saa ay xibaar yu wér te aju ci réew mi ak ci bitim